bisimilah dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci bopp xibaar yi dañ koy doore ak journal bi di Le Soleil moom nag ñëw na ak ñun ci autosuffisance alimentaire muy vers la création loolu la bind ci xëtam bu yàgg mu ne vers la création d'une brigade de sécurité manam fexe dal ba ñu ñongalé dund gi ci walu mu doy ci réew mi ba nga xamné biñ koy jéggaani sax dana néw loolu la bind ci xëtam bu ñak mom ñu di la Soleil yéenekaay ñu jàll ci benen journal di yor yor moom mi ñëw ci achat d'énergie maanaam njaayu énergie mi doxoon eh, ci diggante kii di nga xam ne moom mooy eh, Macky Sall ak kii di nga xam ne moom mooy ex-DG du Senelec boobu di Pape Demba Dippé ñëw na ci ak ki nga xam ne moom mooy eh, Samuel Sarr ki addu ci kàddu yooyu nag moom mooy ki nga xam ne mooy Amadou Ly moom nag mu ngay dénoncé ay milliards yu bari yi nga xam ne luubal nañ ko jëm ci nga xam ne moom mooy ci euh, projet d'énergie bi wala ci euh, achat d'énergie ñu jàll ci beneen euh, journal muy le moom nag ngay ñëw di àddu ci le premier ministre kii wax foofu nag moom mooy Madiambal Diagne mu ngay xam ne kii di premier bi li nga xam ne moom mooy DPG bi du ko def loolu la wax moom mi di Madiambal kii bind ko ci xëdëm bu di républicain ñu jàll ci 24 heures yéen a kaay moom mi ñëw ci li nga xam ne moom mooy l'appel de Serigne Mountakha wooteeg Serigne Mountakha gi dem ci euh, li mu doon janook taskatu xibaar yi doon def ab appel jëmale ci màggal gi ñu jublu ci bokk na ci kàddu yu mu yëkkati nag moom mii di xalifa bi mu ngay woo taalibe yi ci ñu jëfee ndigalu suñu borom waaye tamit mu ngi leen di sant ñu def li nga xam ne moom mooy kaamil ñetti kaamil ku ko mënul tamit na nga ko euh, jox ku la ko jàngal mu leen di woo tamit ci. li nga xam ne mooy jublu seen boroom nañ ko waxee léegi noonu la ko journal bi bindee waaye ñi xam ne tamit ne nguur gi service d'hygiène déployé nañu toll ak euh, téeméer ak fukk ak agence pour pour waa euh, li xam ne moom mooy la découverte de mooy waa service d'hygiène loolu la li nga xam ne waa état bi daal di mu toll ci téeméer ak fukk juróom-ñeent service d'hygiène ñu jëm fee ca Touba ngir lu jëm ci la découverte li ñu lu jëm ci la couverture sanitaire ñu jall ci turbine la turbine lu wax fonctionnement du système sanitaire du pays moom mu ngi jëm ci wàllum ci la santé aux urgences les maladies les malades en danger moom loolu la wax mu li santé bi ci urgence ñi nga danger professeur Gallo mu ne annoncé son départ mu ne mu nga yëg le départ am quitté fi nga xam ne moom mooy fii dem ci beneen barab waaye ki nga xam ne moom mooy euh, professeur Cheikh Tidiane Ndour mu ne quitte le Sénégal pour le bureau régional de l'OMS moom kat dafay dem fële ca l'OMS ki nga xam ne tamit moom mooy professeur Abdoulaye Bousso mu ne vient d'être recruté par l'OMS Afro lii la bind moom journal bi di La Tribune ñu jàll ci le verdict moom mi addu ci coowal voile lii la bii di Euh, Maba Guirassy yor wàllum éducation jugoon dem ca ki nga xam ni moom mooy euh, monseigneur Benjamin Ndiaye daal di toog ak moom toogaam waxtaan euh, bañ fa jógee nag lu mu xam notre nation n'a pas ce problème ne lui en créons pas manam Sénégal da amul problème religion bobu noonu te buñ ko créé mu jëm ci réew mi loolu la xam mom journal bi di Le Verdict ñu jall ci l'évidence yene kay ñu ñëw ci coowal scandale foncier dox ci diggante Diop si Papis Diop dans le Euh, collimateur loolu la bind moom journal bi di l'évidence ñëw na tamit ci coowal li nga xam ne moom mooy Abdoulaye euh, Abdoulaye Sylla boroom Ecotra moom mi traduit leeral point net en justice loolu la bind moom journal bi euh, Abdoulaye Sylla daal dina traduit ñi nga xam ne ñoom ñooy leen ci yoon loolu bind moom journal bi di l'évidence yéen kaay ñu jàll ci la DPS moom mu ñëw ci coowal ki nga xam ne moom mooy port des voiles ci la ñëwaat ba tey ci école privée yi mu ne grâce mission bi dem na ci ki nga xam ne moom mooy li ñu ko waxee sànq ci monseigneur Benjamin Ndiaye daal di fekk ci ay kàddu tànk jàmm gën a taxal diggante boobu. voilà ñu jàll ci beneen journal di l'info ñu fekk fa Guy Marius Sagna ak ki nga xam ne mooy Abdou Mbow ñoom nag euh, ñu ngay yëkkati ay question dal di laaj ki nga xam ne mooy ministre bi wala ñii di gouvernement di leen laaj ci li nga xam ne moom mooy dàqu kii di docteur Cheikh Dieng nekkoon ci bopp ONAS. ngir rek eh, état indil leen ci ay leeral loolu la bindee mu ne Guy Marius Sagna et Abdou Mbow secouent les ministres ngir am ay leeral ci seen i tontu yooyu nag ñu ngi xaar ni gouvernement bi ci eh, nes ñu ci kanam ñu jàll ci réew mi FM moom mi fësal image kii di xalifa bu murit eh, Serigne taxa moom la fësal ci xët bu njëkk ci yéene kaayam di wax ci wàccaayu grand magal de Touba nuñ ko waxee woon sànq nee nañ xalifa bi kat mu ngay rappelé ñi nga xam ne ñoom ñooy condiscipline wareefu ak taxawaay bi recommandation yi nag bokuna ci mune ne bu nek rek na nga jang li di ñetti kaamil boo ko tamit nga jox ku la ko ñu deppok li nga xamne ñu gi ci jamm ak ci salam la wax mom mi di khalifa bi Sud Quotidien wax ci li nga xamne moy bloc des comptes bancaires pression fiscale suspension des euh, convention commerciale jëmale ci presse euh, mu bind ci bu ñak mu la presse au bord de euh, l'asphyxie Euh, presse bi kat mu ngi ci tànk jaaxle xel moo xam ne xelaatutul noonu lañ ko mën a woowee euh, presse bi nag nekk ci phase boo xam ne ci jafe-jafe lay dund ñii di waa CAP tamit amal ci ab taxawaay bu am solo ñoom it ñu nga yëkkati ay kàddu di artu la ci nguur gi ñu bàyyi leen xel bu baax a baax loolu la bind moom journal bi di Sud Quotidien Le Quotidien ñëw ci mu ne état presse euh, les entreprises état kat mu ngay addu wala boobu ngay teg pression ñi nga xam ne moom mooy euh, entreprise yi ba tey ci coowal li nga xam ne moom mooy crise dans le secteur des médias ba tey kon euh, média bi suñ ci déggee bu baax a baax mooy ñu ci seen i jafe-jafe bind na ba tey jëmale ci Abdou Mbow mi ñu waxoon sànq ne euh, mun ngi ay question am fësalaat na ko di ko laaj ci nga xam ne moom mooy ministre bi di Cheikh Tidiane Dieye di ko laaj ki tekkon ci bop ponance len leral lako ci mën jox dinañ ko xaarandi xëy na ci eh, kanam mu ñëw ba tay ci contrôle eh, contrôle eh, fiscaux yi ak li nga xamne ne moom mooy d'aide à la presse moy aide à la presse bi nga xamne dina daan am gisuñ ko ba tay ndax dañ ko supprimer wala dañ ko dindi loolu tamit question la bu mu lacc mom mi di yéen kaay bi di de quotidien mu ne mise en demeure etc cetera mu ne après la fermeture de stade ak sunu làmb CAP aussi indi na ci ay alerte ngir balaa yeneen bi ci topp te xëy na xam naa état dina ci bàyyi xel bu baax a baax dañuy jàll ci libération mi àddoon démb ci coowal ki nga xam ne mooy borom euh, kii nekkoon fii Sénégal yoroon li nga xam ne moom mooy première bet moom tamit moom la bindaat ci xëtam bu njëkk tey mu ne premier bet mu ne sur les traces d'une mafia organisée mom nak ginnaaw bañ ko jàppee euh, dig teg na ko loxol dal di ko laaj àdduna ay kàddoom mi ñak mom mi di ki nga xam moy directeur bi mu ne déféré nañ ko démb mu ne le DG Jory d'hôtel sera euh, sa défense euh, Jory d'hôtel sur sa défense de fuite loolu la bind mom mi di yene kay bi di Libération mom kat bañ ko jappé nee na jabaram mo paniqué loolu motax mu démé ni Euh, ñu jàll ci les échos ñu bind ba tey ci la presse pressée Euh, tout part loolu la bind moom journal bi di Les Échos ni ñu ko waxee mooy coowal presse bi la ñu seetlu yenn ci média yi daal di tëj seen i porte am problème mu fay seen i nga xam ne mooy agent loolu nag mu nekk loo xam ne ñu ngi ciy ñaan état mu teel cee jóg gën a wax na ci Abdou Mbow tamit ci ni ñu ci dàq ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane ci boppu ONAS mu ngi sàkku leeral jógee ci nguur gi ñëw ci moom ñu jàll ci enquête yeneen kaay moom mi ñëw ci crise secteur des médias mu ñëwaat na la presse à l'épreuve presse kat mu ngi ci jamono yi bu bëri setagul euh, ñu ngi xaar tànki jàmm ba tey ci loolu ne loolu ci la ñëw bu fàttali na tamit li nga xam ne moom mooy euh, recommandation yu jógee ci xalifa bu bu murit nekk fële ca Touba muy Serigne Mountakha mooy recommandation yi mu def euh, ci taalibe yi jëmale ci màggal gi ñu jàll ci laas yéenekaay moom mi ñëw ci groupe benn bokk yaakaar ci rumeur coowal ki nga xam ne mooy docteur Cheikh mu ne groupe Benno Bokk Yaakaar veut éventer veut éventer ce qu'on appelle le scandale moom nag foofu la xëy ñëw rek ba tey mu nekk benn question bu jaaxal nit ñi ba tey kenn amul ci réponse laajte rek lañ ci mën a def moom la laas ñëw tey ne groupe Benno Bokk Yaakaar ñu ngay def li nga xam ne moom mooy ba éventer le scandale ñu jàll ci record sport la ñuy wéyal bi mu ngi xamal ne doomu Sénégal bii di Mor Diaw dal dina wax waaw ñi nga xam ne moom mooy waa OM muy. Euh, olympique de Marseille ñu jall ci lops Populi mom mi ñew ci lops lops lops mom ñëw na ci li nga xamne ne moom mooy euh, marché santé état bi nga xamne ne nañ ko mu bind ci xëtam bu njëkk mu né préférence nationale la dure réalité ñew na ci li nga xamne moy mooy marché ak chantier état mom mii di euh, ki nga xamne mom moy lops Populi ñu jàll ci nga xam ne mooy réew mi quotidien moom mi ñëw ci démb ci sport bi euh, di Jeux olympiques yi am fële ca diwaanu Paris euh, doomu Sénégal bi di Cheikh Tidiane Diouf teewaloon ñu fa. mu ngi xamal ne ñu dañ ko éliminer si nga xam ne moom mooy ci li nekkoon noonu di compétition boobu euh, loolu la bind mu ne Cheikh Tidiane euh, Diouf éliminé malgré son record loolu la bind mu ngi bind tamit ci suubu pasam bii di xët bu njëkk bii di ñu xamal ne Balla Gaye ak euh, CNG seen coow la daal ba léegi mu ngay wéy di continuer ba tey waaye amagul fen fa mu yem loolu mooy li fi gënoon a xës fës ci li nga xam ne moom mooy ci xibaar yi ñu jox leen di daje ëllëg lay doon incha allah